bànneex la parce que sama yaay ak samay tante samay umpaañ samay bàjjen mhm. samay cousine mhm. ñëpp dañ may ñaanal mhm. parfois sama yaay na ma ñaan yu bari yu ñoo la téye mais sa bés dana ñëw nit yi di wax tout le temps kañ ngay am ci kër kañ ngay am ci kër donc bu amee tey ñëpp ñëw yéena ma ko di ma ñaanal sama mbokk yëpp ñëw te liñ may wax lépp ñoom ñoo ma ko defal mais man defalu leen ma defalu leen ko sama ay doomu baay sama ay xarit sama ñëpp ñoo ñëw wuy si ma boole si def seen alal ak seen seen seen doole donc lool moo ma loolu moo ma neex am na ñoo xamante ne nii ba ma xamante ñoom yàgg na ça fait des années peut-être gën naa leen dégg mais ku ma yëgle sama mariage rek loo jàppoon da nga koy bàyyi fu nekk nit jóge na fa. ñëw ci mariage bi. donc bu ñu ñëwee di ma ñaanal ma gestu gis samay bàjjen ñu toog sama wet di ma ñaanal. te nee nañ bàjjen mooy bàyyi. donc loolu moo fees sama xol. loolu moo fees sa xol dañ lay masawu dëgg la xol bi fees na waaye tey sa bis la da war a sourire. Eh, tey sa bis la da war a belli eh, tey sa bis la da nga war a kontaan eh, ci biir loolu gis nañu sa yaay wala appel vidéo daal di la tagg tagg la ba nga jooy sa relation ak sa yaay lan la. sama yaay relation bi ma am ak moom mooy sama yaay suñu complice la. école dañ ma daan wax sa mag ji kenn mësul xam ne sama yaay la sa grande sœur lañ may wax. donc mu nekk jigéen boo xamante ne sama yaay mësul fay napp ci àdduna. sama yaay mosul fay sama yaay lu ko métti ci sa yam ñi mu bokkal ndey ak baay xamuñu ko ñun ñi di ay doomam sax su amee lu ko métti dina kamufule ba nëbbuñu ko mm-hmm. sama yaay kuy sëy ci moom ngay jàngee sëy donc man gëm naa ne sama yaay ku mu maye di nga sëy te fas naa yéene jaar tànk bi sama yaay teg teg tànk bu mu teg fas naa fas naa yéene teg tànk boobu parce que yar nañu fi ñu war a yare xamal nañu àddina jàngal nañu diine jàngal nañu muñ jàngal nañu moytu jàngal nañu maanu jàngal nañu téye sa bopp donc man yaay bi ma am dama naan moom la yaay yëpp moom la doom yëpp bëgg am damay sant yàlla bi ma yàlla joxe yaay ju mel noonu mhm. parce que way bu rafet la mhm. nekkul na nit ki dafa sëy tas dafa bon mhm. noonoo nit ki dafa sëy fay dafa bon non mais dañu taamu ci jigéen buy sëy ñu ne du masa yenu yi ndabal fayam sama yaay mosul fay mhm. te fas naa yéene li sama yaay def ma def ko mhm. mhm. tànk boobu laa fas yéene jaar ci kàttanu borom bi ah, dañuy jógee ci moment moment yu triste yooyu daal di ñëw nag belli waxtaanee lu neex ndax nga reetaan tuuti yoon bu baax bu rafet parce que man dama naan artistes yi samay frère ñoo fa nekk samay tonton samay papa samay sœur sama ay xarit sama ñëpp ñoo fa nekk gis nga ñoom ñëpp ñëw nañ donc euh, ma leen di sant bu baax a baax di leen remercier ci déplacement bi ñu def parce que yombul mais yàlla dafa def dama bëgg dañu bëggante ñun ñëpp daal benn lañ bu ñu tasee tournage dafay mel ni comme si dañu bokk ndey ak baay donc voilà waaw mais fi mu ne nii nag madame Camara la c'est officiel message fort laa bëgg à monsieur mbëggeel gi laa bëgg mu saf saf ayca loo koy wax. <laughs> asalaam. Eh, eh, eh, loo koy wax yow. monsieur Camara. Mhm. ah Camara nee na. Ah, ah. non non koy leb bébé. <laughs> Eh, moom jaara xoolal fan si yaa ngi lay xaar wax la monsieur Camara mu ngi nii toog di la seetaan. monsieur Camara ah. monsieur Camara. <laughs> Uh-huh. I love you je t'aime je t'adore. Mm. mais fi mu ne nii monsieur Camara nee na moom carte euh, lay signé. amul problème. ah génnaan nga ci. man sama yaay daawu jë ba faatu fa yàlla amul benn problème loo mën a andi rek dama koy bon ci sama ginnaaw rogganti tam tamal ne leen noppi leen. wóor na ne doo daw. sama yaay du daw man du ma daw. Ah, ah. maam bu daw samay maam du ñu daw dañuy dee ci xare. <laughs> waaye damaa leer ba leer ma. Eh? am na fu ma koy téye <laughs> dina xalaat leneen lu deuxième ak troisième. awoolu nga sa bopp man la princesse ah. waaw kon neex na comme gan yaa ngi ñëw ñu ngi ñuy accéléré dañ lay daal di bàyyi rek nga daal di euh, lancer message say fans yi nga xam ne ñu ngi lay bégee toog nag di la seetaan en attendant nga wuy ji gan yi. waaw maa ngi remercier ñi fi teew ñëpp sama copine yi sama collègue yi sama bàjjen yi sama tata sama umpaañ yi mes cousines mes sœurs samay dëkkandoo bàyyiwuma kenn sama fans yi bàyyiwuma kenn jama moom damay du ma topp da tàyyi ci di ko wax parce que moo décoré fii ba mu baax ne ma sama fans nga sama lépp la nga macha allah fans yaa ngi nii ci bunt bi di ma wuy si mhm. donc maa ngi sant bu baax di gërëm waa Rossi ñoom tonton Momo tonton di grand laay euh, di gërëm ñëpp daal macha allah ak sama tataanda bu sàll maa ngi koy gërëm Bintu Cissé sama compagnon de guerre kooku mm-hmm. maa ngi moom dañoo galéré ndoo Maris mi ngi nii borom jooy bokk sama yaay ndeyax baay macha allah di nit ku baax sama tata jaari seen mm-hmm. nekk fii sama bàjjen day Diop man daal dama kontaan sama bàjjen Yacine ñoo ñu bokk ak sama papa benn papa mhm. kontaan naa ba fu kontaan yem. Mhm. parce que nit amul lu dul bësam. waaye nit aussi amul lu dul ay mbokkam mais nit aussi amul lu dul ñu ko bëgg te ñi fi nekk ñëpp ku teg kaamil ma teg sama loxo ne ñoom ñëpp mu bëgg kenn bëggul sama defet donc maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko teewaat ci yeneen xew xewu jàmm ak salaam donc ba voilà mi ngi noonu sant heureux ménage lañ lay daal di souhaiter di la bàyyi rek nga daal di dem wax ak gan yi d'accord merci beaucoup